waaw xel ñu ñu bég di ñaanal suñ mbokki palestiniens yi. sëriñ bi nañu bég di ñaanal suñ mbokki palestiniens yi. ci seen bés bi nga xam ne jullit ñëpp lañ ko defal ci seen bés bi nga xam ne jullit ñi ñëpp lañ ko defal ndax jullit ñi àggoon nañ foo xam ne xamatuñ fu ñu jëm ndax jullit ñi àggoon nañ foo xam ne xamatuñ fu ñu jëm xamatuñ xamatuñ ne am xamut fàtte nañ ne am nañ doole fàtte nañ ne am nañ doole fàtte nañ ne wan nañoo def dara ci àddina bi fàtte nañ ne mën nañoo def dara ci àdduna bi ñu jébal seen bopp lu lu ñëw rek ñu jébal ko seen bopp ngelaw ko seen bopp waaye xale àdduna bi benn dars boo xam ne. jàngal nañu àdduna bi beneen leçon boo xam ne. fu nekk la àgg ci yëkkatiku. fu nekk la àgg ci yëkkatiku. àgg ne ñun mën nañoo def dara def nañ ko. àgg ci na ñun mën nañoo def dara te def nañ ko it. te dañ koo def defuñ ko ci làmbatu dañ koo def ci kaw xam-xam. te dañ koo def defuñ ko ci kaw làmbatu waaye ci kaw xam-xam lañ ko jëfee. dañ koo def ci jàkkaarloo ak technologie ak technologie. dañ ko def. ci jàkkaarloo ak technologie bi ak technologie dañ koo def ci jàkkaarloo soldaar ak soldaar dañ ko def ci jàkkaarloo ci soldaar ak soldaar dañ koo def ci jàkkaarloo dañ koo def ci jàkkaarloo stratégie ak stratégie stratégie ak stratégie dañ koo def ci jàkkaarloo dañ koo def ci jàkkaarloo man suma alal la maa ko moom man suma alal la maa moom ak lu ma néew néew doole ak lu ma néew néew doole. kenn du ko nangu ci man. kenn du ko nangu ci moom. ci doole. ci doole. ndax doole mayewul dara. ndax doole mayewul dara. lu mu la may dina la ko xañ. lu mu may dana la ko xañ. dëgg rek mooy mooy mooy maye mu sax. dëgg rek mooy may jaam bi am am ba sax ca moom. mu taxutoon nag dëgg googu ne mooy sax. bu nekkul la nag dëgg jooju mooy sax. kon dégg dëgg Palestine xale yi ci Palestine. kon dëgg-dëgg xale yi ci Palestine. mënuñoo def lii ñu def. mënuñoo def lii ñu def tey. waaye dégg gi ñu àndatoon gëm ko. waaye dégg gi ñu àndatoon gëm ko. jébbalul jébbal ko seen bopp. jébbal ko seen bopp. dëggalal na leen loo xam ne. dëggalal na leen loo xam ne. am na ci ñoo xam ne mosuñ koo gént. am na ci ñoo xam ne mosuñ koo gént. moo tax bu ñu ko defee. moo tax bu ñu ko defee. yëkkatil na yëkkatil nañ jullit ñi. yëkkatil nañ jullit bi. ñu jullit ñi xat xat xat yooyu ñu nekkoon xat xat yooyu ñu nekkoon ba gëm ne mënuñ dara ba gëm ne mënuñ dara ba gëm ne waruñoo jéem dara ba gëm ne waruñoo jéem dara ba gëm ne ba gëm ne adduna bi yëpp seen i noonu lañ adduna bi yëpp seeni noon lañ loolu yëpp xale yi dindi nañ ko tey loolu yëpp xale yi dindi nañ ko tey si ñu ngi ñaan yàlla nag ñu ngi ñaan yàlla nag ñun ak xeet wi yëpp ñun ak xeet wi yëpp ñu àndaat ñu àndaat. jëm ci benn ëdëf boo xam ne. jëm ci benn ëdëf boo xam ne. mooy xeet wu bari wii. mooy xeet wu bëri wii. naka lañuy def ba jëriñoo seen seen seen seen bëriwaay googu. naka la ñuy def ba jëriñoo seen bëriwaay googu. ci lu nekk. ci lu nekk nag. waaye tasaare ko. waaye tasaare ko. kii lii la kii lii la kii lii la. kii nii la kii nii la kii nii la. ñu nekk ci di xuloo xuloo yoo xam ne. ñu nekk ci di xuloo xuloo yoo xam ne. musiba bu ñu dal rek foofu la bàyyeekoo. musiba bu ñu dal rek. ci loola la bàyyeekoo. ndax yàlla moo ñu wax ci alquran mu ne. ndax yàlla moo ñu wax ci alquran mu ne. bu leen uutee. bu ngeen uutee. seen doole dem. seen doole dem. kon nag uute boobu ñu uute boobu uute boobu ñu dal. moo demal moo moo demee suñ doole yëpp moo demee suñ doole yëpp moo demee suñu kattan yëpp moo demee suñ kattan yëpp moo demee suñ dëgg gi nga xam ne moo demee suñu dëgg gi nga xam ne benn dëgg melut ni moom ci kaw suuf si benn dëgg melut ni moom ci kaw suuf ci ci ci nit ci defar nit ci defar nit ci taxawu nit ci taxawu nit ci yëkkati nit ci yëkkati nit loolu yëpp loolu yëpp xale yi palestiniens yi tey dëggalal nañu ko xale yi palestiniens yi tey dëggalal nañ ñu ko. moo tax jullit ñëpp a ngi kontaan. moo tax jullit ñi ñëpp a ngi kontaan. moo tax ñu ngi leen di yónnee nuyoo fii ci jumaa yi Cheikh Ibrahima. moo tax ñu ngi leen yónnee fii ci nuyoo ci jumaa ak sénégalais yëpp itam. ak sénégalais yëpp itam. taxawaay. ne ñu ñu ngi leen di ñaanal nañ leen daan ñaanalee. ñu ngi leen di ñaanal nañ leen daan ñaanalee. yal na yàlla def ci yen yéen kéemtaan. ne na yàlla def ci yéen kéemtaan koo xam ne dana soppi addina bi yëpp dana soppi addina bi yëpp mu jëm ci maslaha jullit ñi mu jëm ci maslaha ci maslaha jullit ñi te lu mën nekk te lu mën nekk la te loolu lu mën a nekk la góor gu fi góor góor moo daw rek waaye lii yàlla di may yëpp ñu fi góor moo daw rek waaye lii yàlla di may lépp a fi bu góor ñi ñëwee rek bu góor ñi ñëwee rek yàlla won ne yàlla wane ne. na ma nekkee woon démb ak seeni maam. la ma nekkee woon démb ak seeni maam. moom laa nekk moom laa nekk ba léegi rek. ci loolu laa nekk ba léegi rek. bu ngeen dawee nag yéen a daw. bu ngeen dawee nag yéen a daw waaye mag may di jógewu fi. destin boobu. leçon boobu. leçon boobu. mën nañ koo jàng tey ci fan yii. mën nañ koo jàng tey ci fan yii. yal na yàlla yëkkati Palestine. yal na yàlla yëkkati Palestine. yal na yàlla dàq dooley dooley seytaane ya fa nekk. yal na yàlla dàq dooley seytaane ya fa nekk. yal na yàlla boole yal na yàlla boole leen. ñu àndee ci nekk mbooloom jullit mi nga xam ne. ñu ànd ci nekk mbooloom jullit mi nga xam ne. mooy mooy bi yonent yàlla Muhammad doon gént. mooy li yonent yàlla Muhammad doon gént sallallahu alayhi wa mooy bi ñu yàlla sant ci alquran. mooy li ñu yàlla sant ci alquran. ne yéen yëpp benn xeet rek ngeen. ne yéen ñëpp benn xeet rek ngeen. man yàlla may seen borom. man yàlla may seen borom. yal nañu yàlla may loolu. yal nañu yàlla may loolu yaa rabbi. kon sëriñ bi de mu ngi wax porte parole. mu bind leetar bi tahniya. Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé. bind leetar mu jëm fële. mu bind leetar. mu jëm fële. leetar yu ci ambassade bi. ci ambassade bi. bu ko mënee jàllale mu jàllale ko. bu ko mënee jàllale mu jàllale ko. wax wax ko ne yëpp ñu ngi kontaan comme ñoom. wax ko ne ñu ngi kontaan comme ñoom. ñu leen di ñaanal nañ leen daan ñaanalee. ñu ngi leen di ñaanal ñu leen di gërëm. ñu ngi leen di gërëm. ci seen taxawaay bi nga xam ne. ci seen taxawaay bii nga xam ne. dëgg-dëgg jullit bu nekk dina ci jëriñu. dëgg-dëgg jullit bu nekk di nga ci jëriñu. ndax dindi nañ ci seen xol yi ragal ak tiit. ndax dindi nañ ci seen xol yi ragal ak tiit. ak yaakaar ne am na leneen loo xam ne. ak am na leneen loo xam ne. mën naa uutu yàlla ci ñoom. mën naa uutu yàlla ci ñoom. loolu yëpp dindi nañ ko. loolu yëpp dindi nañ ko. kon alhamdulilahi rabil alamin kon alhamdulilahi rabil alamina. yal ñu yàlla may loolu ci Sénégal. yal nañu yàlla may loolu ci Sénégal yaa rabi. tamit ñu ànd foo ñu àgg foo xam ne. te ñu àgg foo xam ne. danañu jëriñ ci suñu réew. ñu jëriñ ci suñu réew yaara bi. danañu jëriñ ci suñu àndoo. danañu jëriñ ci suñu kàndoo gi ndax àndoo rek. ndax àndoo rek. moo mën a tabax moo mën a tabax waaye fasante ko waaye fasante koo man lii laa man lii laa man lii laa man lii laa man lii laa man lii laa ku ne di gis sa loolu yëpp dafay tasaare dooley réew mi loolu yëpp dafay tasaare dooley réew mi tasaare kattani réew mi tasaare kattani réew mi ba tax réew mi sax comme gouvernement bi mën a jëriñ population bi ba tax réew mi sax comme gouvernement bi mën a jëriñ population bi waaye bu ñu àndee waaye bu ñu àndee ñun ñëpp pour ñun ñëpp pour Sénégal. jàppale suñu autorité yi. jàppale suñu autorité yi. autorité bu fi mën a nekk rek. autorité bu fi mën a nekk rek. ñu xam ne moom la fi yàlla teg pour ñu ànd ak moom. ñu xam ne moom la fi yàlla teg ñu ànd ak moom. jàppale ko. ñu jàppale ko. kon dëgg-dëgg mën nañu tabax suñu réew mi. kon dëgg-dëgg. su boobaa danañ mën a tabax suñu réew mi. danañ mën a àgg ci li ñuy gént yëpp pour dëggal ko. danañ mën a àgg ci li ñuy gént yépp pour dëggal suñuy gént yaakaar ne mën nañ koo amee ci biti yaakaar ne mën nañ koo amee ci biti ci biti mënuñ fa amee dara ci biti mënuñ faa amee dara ci biir rek lañ mën a amee ci biir réew mii lañ mën a amee waaye am sa doole jaayi ko ci biti waaye am sa doole jaayi ko ca biti am sa xam-xam jaayi ko ci biti am sa xam-xam jaayi ko ci biti ba pare di yaakaar ba pare di yaakaar ne mën ngaa yokku ne mën ngaa yokku da ngay nax sa bopp rek da nax sa bopp rek nañ ñëw ñëpp ñu dajalaat ci suñu réew nañ leen ñëw ñun ñëpp ñu dajaloowaat ci suñu réew mi nekk loo mën a liggéey rek pour réew mi nga liggéey ko nit ki loo mën a liggéey rek pour réew mi nga liggéey ko dalee ko ci mbay mi ñu dalee ko ci mbay mi dalee ko ci métier yi nga xam ne dañ koo doon ci suñu ay waajur ak suñuy. dalee ko ci métier yi nga xam ne dañ koo donn ci suñu ci suñu waajur yeeg dañ koo jàng ci suñuy ite. yooyu yëpp ñu jéem koo développé. yooyu yëpp ñu jéem koo développé. ndax développement. ndax développement. comme ni ko allemand yi jàngalee. comme ni ko allemand yi jàngalee. weñ ak safara rek la. weñ ak safara rek la. bon nag ku bëgg a uh, ñàkkal nit fayda. kon ku bëgg a ñàkkal nit fayda. naan ko weñ safara ci ngay liggéey. naan ko weñ ak safara ci ngay liggéey. da ngaa xamul dara rek. da ngaa xamul dara rek. yow xamul ne ñooñu ñooy agent de développement. ndax xamoo ne ñooñu ñooy agent de développement. kon ñu ngi ñaan réew mi. kon sëriñ bi ne ñu ngi ñaan réew mi. ñu jël leçon ci xale palestiniens yi. ñu jël leçon ci xale palestiniens yi. ne mën nañoo def dara. ne mën nañoo def dara. buñ ci dogoo. buñ ci dogoo. buñ ci àndee. buñ ci àndee. te wa te bàyyi bàyyi xuloo yoo xam ne. te bàyyi xuloo yoo xam ne. teguwut fenn taxawut fenn. teguwut fenn taxawut fenn. ci bànneexi bakkan rek la taxaw. ci bànneexi bakkan rek. la weeru wéeru di commentaire. te bànneexi bakkan mënta tabax dara. te bànneexi bakkan mënta tabax dara. nañ nañ yëkkati suñu itte tuuti. sëriñ bi na nañ leen yëkkati suñuy ite tuuti. jéem a xam àddina bi. jéem a xam àddina bi. ni muy doxee ak li koy dolli. ni muy doxee ak li koy dolli. nekk peuple bu ndaw terewul nga mën a nga mën a avancé. nekk peuple bu ndaw terewul nga mën a avancé. luy ndaw ndaw. lu mu ndaw ndaw. ay nit a ngi fi. ay nit a ngi fi. te nit rek la yàlla di xamal. te nit rek la yàlla di xamal. nit rek la yàlla di dolli. nit rek la yàlla di dolli. waaye nag na fekk nga sàkku ko nga bëgg ko. waaye na fekk nga sàkku ndollo loolu. te bëgg ko. te xam ne mën naa ko amee fii. te xam ne mën nga ko amee fii ci sa réew mi. mën naa ko dëggalee fii. mën nga ko dëggalee fii. loolu yëpp buñ ko defee. loolu yëpp buñ ko defee. dëgg dëgg ak ah, tuuti des na tuuti rek. dëgg-dëgg des na tuuti rek jàmbat yi dootoo ko dégg jàmbat yi dootoo ko dégg ndax boobaa ku nekk am nga loo war a def ndax su boobaa ku nekk dana fekk nga am yow loo war a def yal nañu si yàlla dimbale ci loolu yal nañu yàlla dimbale ci loolu yaara bi yal nañu yàlla yëkkatil suñu réew yal nañu yàlla yëkkatil suñu réew mi yaara bi yal na yàlla may ñu ay xale yoo xam ne yal nañu yàlla may ay xale yoo xam ne danañ xam danañ dégg danañ xam te danañ dégg te dinañ nangu te danañ nangu di jëfee. liggéey pour seen pour seen bopp ak pour seen réew. liggéey pour seen bopp ak seen réew. dana jafe nag. dana jafe lool nag. xas nañ miin dundin bi. xas nañ miin façon yi dundin wi. waaye boo ci bëggee génn itam. waaye boo ci bëggee génn itam. te dogu. te dogu. di ci génn. di nga ci génn. te da nga def lu gën a baax. te da def lu gën a baax su boobaa. yal nañu ci yàlla dimbale. yal nañu ci yàlla dimbale. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf